jërë ngeen jëf waxi waxtaan yu président Macky Sall woote moom la yéenekaay yi xëy ñu dem ci l'observateur mi xëy dem ci Ousmane Sonko mi ne du dem ca dialogue ba ubbil yéenekaay bi bañ gi mu bañ lànk kandaar ne demul ca dialogue ba journal bi gis ne wéet na ca lool Sonko seul contre tous ndax ci biir leader yu yeewi askan am na ñu ne dañu cay dem bokk ci ñoom Khalifa Ababacar Sall naka noonu it waa parti démocratique Sénégal Alassane Ndaw dib enseignant chercheur bi ba wax ko mi ngi koy leeral ci biir l'observateur l'observateur wëlbati ko jox kàddu gi Babacar Dione ab journaliste la buy gëstoo ko xeltu ci politiku réew mi li mu gis mooy Ousmane Sonko ak fi mu taxaw mu di taxaw ne bokkul ci dialogue bi loolee dafay gën a dëggal taxawaayu opposant radical bi muy woote Babacar dolli ci ne ab dialogue politique ci réew mi bu Ousmane Sonko bokkul loolee problème la waaye ak lu mu ci mën di doon moom li mu jàpp moo di ak ñàkk bokkam ci dialogue bi Macky Sall du ko yëgal yaramam lëkkut jeneñu dialogue boobee Macky Sall woote féewale na na ci diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko dafa dem ci dialogue bi mooy li ko arrangé te loolee fekku ci Sonko moo tax la Sénégal mel ne ku gis ne alliance Ousmane Sonko ak Khalifa Sall bu doon aw ñam la ñu ne date bi mu war a yegsi na ci dialogue bi ca la waroo journal Tribune mi gis ne dialogue bi ab dil ba tuddee ko dialogue dil dolli na ci di laaj kan ci diggante Macky Sall ak waa Wàddeen la dialogue bi ëppër njariñ kilifa politique beneen bu gàntal loxo bi Macky Sall tàllal Tribune ne nañu ndaw yi jàppal tànk Bougane Gueye Dany sa bopp dàq nañu dialogue bi ba dàqale bépp xeetu dil bu ñu mën teg ci ndoddal askan wi waa parti démocratique Sénégal anki dini kay ne nañu tontu nañu Aminata Touré mi leen di tuumal ne dañuy baara yéegoo ak Macky nee nañu it dialogue bu président Macky woote ñoom danañ ca waaye nag ci kawi condition teg nañu seeni condition bi ci njëkk mooy révision procès bu Karim ñaareel bi di ñu bëgg dialogue ba ba mu des mbiri deuxième quinquennat bu président Macky bi waa COJER nee nañu loolee mënul bokk ci li ñuy ndax yoon réglé na ko ba pare ñoom ndawi COJER it le nee nañu rafetlu nañu it taxawaay républicain bi waa Parti démocratique Sénégal ak waa taxawu Sénégal taxawee ci woote waxtaan gi président Macky Sall woote Ousmane Sonko jalgati na contrôle judiciaire bi ko justice defoon journal L'Info moo ko bind moom jiital parti da koo tere mu génn réew mi fësal ko Walf bind ne Sonko xutti na contrôle judiciaire gi ko juge bi defoon libération nañu désobéissance civile gi mi doon wax ca la nekk moo tax mu teg jéego bi mu teg démb di talaata ñaari fan ci weeru ci la tëj révision bi ñu doon def jëmee ko ci liste électorale yi le nañu ci bésub démb bu mujj bi gis nañu mbooloo mu takku ci commission yi demoon fa doon bindu bi ñu tàmbalee inscription yi ba nit ñu ko tëjee démb lu ëpp ñetti téeméeri am ay primo votant ñoo fa doon wane seen maire ba caxat-caxatee sous préfecture ba yàq nañu fa ñetti bureau tojote fa ay huit heures li andi coow li yéenekaay bi nee na ñoom moo di dañoo demoon bëgg a bindu ñu ne leen tëj nañu ko loolee moo leen merloo ñi doon tojoka caxat-caxatee sous préfecture bu ndàmb vox populi nee nañu am na kenn ci ñoom ku ñu ca teg loxo